بالله من الشيطان الرجيم عدنا والعود أحمد إن شاء الله نقدم تحيتنا إلى الشيخ كما أننا تأخرنا كثيرا ثم نتلو قصيدتنا وتلك التحية يكون إن شاء الله ببيتين عليكم سلام الله يا سيد العلي مع رحمة الرحمن والبركات abuqun bi riixil miski yuribu sha'nakum yazidukum umran ala alxarakat kon loolu ab nuyoo la rek boo xam ne dañ koy jàllale ci sëñ bi doog a euh, daal ci suñ xasida euh, wa hadihi qasidatun euh, unwanuha الشيخ المجدد ويسألونك عن شيخ به صانى رب الطريق جزورا ثم أغصانا ويسألونك عن شيخ به صانى رب الطريق جزورا ثم أغصانا بالمنتقى عرفت سماته اشتهرت عمت مزيته في الكون أوطانا إن زير جدد فينا همة ضعفت أو قال أخرس قصا ثم صحبانا أغر أهدب حتى الشمس تشبهه وكم شفى جوده فقرا وأحزانا جميل خلق وخلق أحمدي مقام عارف baasilun yunsika shajaana zu himmatin tunhidul ajaza nahda fatan zu haybatin layyinun yaqtaadu fityaana ma in taraahu jalisan inda hadratihi illa bashushan bahijal wajhi jazlana illa iza kana fi waqti tafakkuri fi sha'ni aljalali fatalqa alqalba hayrana inna tajalliya حيث البسط يبعثه يري جمال كريم دام رحمانا أما إذا كان حال القبض فهو يري من الجليل جلال الحق ما لنا وبين ذاك وهذا رحمة غلبت خبا بها الله أقتابا وإخوانا وذاك لم يدره إلا المغمس في بحر التصوف من شيخ له بانا ونعم إن كان كالشيخ الولي سندي المنتقى من يربي اليوم الإنسان فلهو آية صدق الاستجابة للجد الخديم فخذ في ذاك برهانا فقف بدار المنن دار الخديم وصل من جدد الدار تطويرا وعمرانا قد رمم المسجد القديم متسعا وجامعا رائعا شكلا وألوانا مجددا روضة الشيخ البشير له أقام مكتبة كالبحر جريانا وقد بنى دار تنزيل كمدرسة للعلم تنشئ أجيالا وأقرانا كذا مدارس أخرى كذا مدارس أخرى الكل ينشئه يعلم الجيل آدابا وقرآنا وحين يكمل ذا المشروع يومئذ سيفرح المؤمنون الدهر أزمانا أقام حلقة تدريس الحديث مع التفقيه في أرض طوبى سعيه ازدانا مجددا منهج التعليم محتفظا بالمذهب المالكي ولا عقد قد زانا ولم يزل ساهرا في أمر جامعة كانت كحلم لنا تحقيقه حانا مراده جعل طوبى قبلة عزمت في العلم ذا الشيخ بالتجدين قد دانا muraaduhu jaalu tuubaa qiblatan azumat fi lilmi za cheikhu bittajdiini qad daana rabbi stajib wal tukammil maa nawaahu ladaa tuuba allati bika tubnaa fiika bunyaana fazaaka yakfiihi tajdiida tariqati bal tajdiida diinil waraa wallaahi maa xaana haazaa la amriya faxrun lil xadiimi wa man fi qalbihi zarratun taqwan wa iimaana yaxmil muriidiina عن كل المفاسد لا يمل من نصحهم كم قاد إنسانا لله حتى بدا للقوم زاهما من يهدي البرايا ويحيي الدهر أركانا بالأمن عمره دوما وأيده على المدى ناصر ما زال منانا بجاه سميه المختار سيدنا صلى عليه العلي في الآل إدمانا والشيخ أحمد بمبا بالقديم دعي ختم الطرائق جيلانا وتيجانا والشيخ أحمد بامبا بالقديم دعي ختم الطرائق جيلانا وتيجانا wa عليكم ورحمة الله تبارك الله تاي موي بيسوب سيغ منتخا بيغا خامني at mu def mu dajale at mu ne laaw la mu dajale borom xam-xam yi leen wax ak ñoom jàjji leen delloo leen ci yàlla fàttali leen sunu borom fàttali leen sëriñ Touba. bëgg lu baax ñoom ñëpp ñu daje baax lool bëgg sëñ Muntaxa yéene ko lii muy def yal na ko yàlla fay lii sëñ Muntaxaay def day doon bisub xasaayit yi bu ñëwee da koy def xasaayit yi sëñ Tuubaa maamam yi da leen di berndeel bisub borom xam-xam yi mu dajale borom xam-xam yi di leen berndeel sëñ Muntaxa yal na fi yàgg te ku ne yal na fi yàgg yal na nga fi yàgg ci barke sëñ Tuubaa jox ko nag rakam ju baax ji togg yi dëkk bi fu ne laaw la cat la joxe ay togg ku ne togg andi waaye fii nag mooy kër Soxna Baali kër Soxna Baali nag mbooloo mi ngeen seen ñu togg andi togg ci biir kër gi di tibbaate mbooloo mépp daje dañuy ñaan ci yàlla ak yonent bi sëriñ tubaa Touba Cheikh Mountakha yàlla na fi yàgg Soxna Baali yàgg fi ñu yàgg ci gannaawam nag ca lépp sëriñ tubaa tax lépp delloo ne ko Serigne bi. delloo gi sëñ Muntaxa delloo sëriñ ba sëñ Touba boppam ci barke Cheikh Basirou delloo ko boppam taalibe mi ànd ko ak ñoom ñun ñëpp Mbàkke noo ñaan nga yàgg fi ca wér ci barke sëñ Touba ca soxna Bally yàgg fi nag li ma leen di wax li muy liggéeyal maamam du ci son du ci tay du bàyyi togg yi ak jigéen ñi du ko bàyyi ak taalibe yi ca fajar la yeew taxaw rek laaw la cet fu ne mu taxaw fa la fa baax ak lépp tubaarkàlla mu def ko ngir jëmmi maamam yal na ko maamam fay li muy liggéeyal maamam ci taalibe yi di ko liggéey ci sëñ Muntaxa yal na ko yàlla fay ci barke sëñ Touba sëñ Muntaxa nag kenn mënu koo fay ndax ku la wommat jëmale ci sëñ Touba mënatoo koo fay de xanaa dañ koy ñaanal mu yàgg te wér rek ci barke sëñ Touba ndax ku réeroon ku nga ku sànq woon dellu si nga di ñaan sëñ Muntaxa yàgg fi te wér ndax moom Mbàkke li muy def. dalay jajj rek dalay jajj ci lu baax di la delloo ci boromam jaamu yàlla ak liggéey ak gore ba ñu weg la loolu la ko maamam jàngal ak baayam ci loolu la ne ku mu àndal loolu la lay sant loolu ngay def kon nag fii nag ñoo ngi kër sëñ Mountakha añi noppi na ñu ngi koy tibbaate oto yaa ngi taxaw di ko yóbbu ci biir kër gu mag gi di ko yóbbu ci kilifa yi kilifaam yi dañuy ñëw rakkam yi dañuy ñëw taalubeem yi dañuy ñëw bu nagan ne yàlla nañ ko def ci dara ji sëñ Touba barka Xaadimu Rasuul barkab Cheikh Basirou Mbacké Cheikh Basirou nag moom la yàlla fayee lii de Cheikh Basirou la yàlla fay tubaar macha allah ni mu bëggee baayam ni mu bëgge alxuraan ni mu bëggee taalubéem yi yàlla fay ko Cheikh mu ne fi di jàmbaar ba dem ku naa Moustapha gënu ma di taalubé léppam mu def ko ak taalubé jóge fi rakkam ju baax ji sunu yaakaar tey ak ëllëg Cheikh Mountakha taxaw tànk yooya ba dolli ca jaloore yi boppam taxaw ci njaboot gi taxaw ci taalibe yi ku ne la sant jaamu yàlla ak gore ak liggéey yal na ko yàlla fay ci barke sëñ Tuubaa soxna Baali na kenn mënu koo fay ku mu àndal tubaar koo bëgg a àndal da koy nekk ñii mu àndal nekk na leen ci bis bi yàlla na ko yàlla fay barke sëñ Tuubaa wasalaam ngeen baal ma bu déwénee yàlla nañ ko def. salaamaaleykum maa ngi nuyu ñi fi teew ñëpp di wane sama mbégte ak mbégte mboolem ku fi nekk ndax soxna Baali nii rek ni la mel chaque jour ci lii rek ci lay yëngu kuy wax bernde moom boo egsee soxna baal ci ngay weññeekoo waaye nag mooy tànneef ci biir tànneef tànneef ci biir tànneef nag nii rek la mën a mel ndax suñ borom tabaaraka wa taala da koo tànnal waajur soxna Maguette Gueye ci askan wu baax tànnalaat ko Seex Abo Madiyana soñ bu di doomi Seexul Xaddim Seex Abo Madiyana tànnal ko tur soxna jaaratu laa mu dem ba mata daal jàng mu tànnal ko soxna may bintu Xaadimal tànnalaat ko Cheikh Mountakha ibnu Cheikh dal Basir kon moom tànneef la ci biir tànneef waaye nag suñ borom fay na ko ndax lépp lu mu sonnaloon soxna May am na ñu ko defal. ñoo ngi nii bu nee guddi na ñu ne guddi na bu nee naañ na mu ne naañ na lim toggalu nii léegi nii su ko ëlbatiwaatoon ne dinañ ko taalaat léegi ñu taalal ko ko te lépp ci jikkoom la jëfam la. luñ ko defal rek asakay liñ ko yéene la yàlla na ko suñu borom tabaaraka wa taala musal ci cat ak balaa ca làqal ko lépp lu mu ragal dàqal ko ko ci barke Xaadima Mustafa lii rek ci lay yëngu. foo fekk soxna baal ci nii rek la nekk suñ jógee nii ñu nga jaalu bet buñ ci jógee ñu nga poroxaan ci lii rek la yëngu yàlla na ko catlu ay teggi ci barke xaadimul Moustapha kontaan nañ torop duñ sonn duñ tàyyi waaye nag lii rek la mën a am ndax dafa sonnal ñu jar a sonn moo tax bu demee ba war a noppaloo day am ñu ko sonnal te duñ ko sax yëg luñ koy defal dañ koy defee bànneex ndax jikkoom la waa kër soxna baal yi waa kër sëñ Muntaxa yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen woo ñu takk suñu ci kër soxna baal yi ànd rek suñu ginnaaw soxna baal liggéeyal sëñ Muntaxa suñu sëriñ suñu lépp suñu yaakaar tey ak ëllëg di ko ñaanal mu yàgg fi dund téeméer at yu tegal fukk ndax lu mu fi yàgg gën a baax ñoo ngi koy ñaanal yàlla di ñaanal suñu bàjjen soxna a ànd ak liggéeyal ko na ko yàlla defal ci barke sëñ Tuubaa maamam ba lépp a ngi nii am nay taalibeem ñun ay doomam nag a ngi taxaw ci ginnaawam bu nekk ju nañu jóg bu ne naaj ñu jóg heure bu su nekk takk nañ daal suñu laxasaay daal suñu xol daal dafa fan lu gudd yàlla bàyyi ko sëñ Muntaxa ba ñu màggat bayraam dund ñaar téeméer jërëjëf bàkk sëñ Touba. nañ dund téeméer a ak ñaar fuk moo rakam ju jigéen ji soxna Bali Mbacke sa borom bàyyi leen fi ñu dund téeméer ta ak ñaar fukk dana ànd ko ñoom di liggéeyal sëñ Touba ci toolu sëñ Bamba bi ak mboolem ku ko bëgg ku ko yaakaar aku ko gëm ak ku sopp sëñ Mountakha yal nañ ko yàlla boole. soxna Bali ak Cheikh Mountakha dund téeméer at ak ñaar fukk lépp ñu ne fi di ko liggéeyal sëñ Touba ci toolu sëñ Bamba bi yal nañu ko yàlla defal ak yonent bi ak sëñ Touba. ndax sëñ a moom mun naa mën a ko jàmbaari lislaam la jàmbaari lislaam dëgg la sëñ Touba rek la fi nekkal nekkalu fi kenn ku dul moom amoo soxna Bali Mbacke rakkam jee yàlla na leen fi yàlla saxal te may leen wér ak fan wu gudd ñu jiitu ci suñu kanam ñu topp ci seen gannaaw ci doole sëñ Bamba amiin